dafa bari de Mansour Faye am na benn doom bu góor ak ñaari jigéen doom bu góor bi xale la la plus de vingt six ans moom mi ngi ci ay affaire am Aïssata Faye doomam la moom moo yore jaari soow ñu ngi yore benn ferme bu ngand bango ci biir benn ranch boo xam ne mille mètres carrés ci biir lañ am sax fu nag ya nekk nag ya nag dañ leen di wax ni nag yooyu du nagu Mansour Faye seen nag la suñu nag la moo tax man na leen bés bu révolte amee dam leen jëli ci nag yooyu daal expliqué nan la doonee suñu nag Oumou Faye moom mooy troisième doom ja agro business lay def ay tool la yore moom ferme la yor donc loolu blanchiment de capitaux la blanchiment d' yoo xam ne ay milli milli milliards la Mansour Faye sàcc yu mu amul fu mu ko dugal yu mu amul xamul sax fan la koy def nag yi nag gouvernement bi moko jëndoon ben projet bu tudoon projet d'insémination la tudoon projet d'insémination d'insémination manam ay nag yi nga xamni ñi ngi joggé Hollande ñu jënd leen bëggoon leen jox ñi nga xamni ñoy cultivateur yi ñi ñoy sàmmkat yi ñu jox leen nag yi loolu lañu ñu décidé woon jox leen nag yi pour nga xamni ne nag yi mëna di produire mew et tout donc ay nagu gouvernement bi la légui gouvernement bi jël ko jox ko cultivateur yi jox ko éleveur yi toog ba mu neex ko mëna ne ñoom yi amuñu amuñu lu ñu lekk bay jox nag yi lu ñu lekk te nag yi léegi ñu dee nag yaa ngi commencé ràgg te nag yoo xam ne lu ñuy consommé lu ñuy génn ci meew day bëri Aminata Mbengue Ndiaye moo ko indoon moo ne woon ministre de l'élevage ministre de l'élevage ay milliards lañ jëloon jënd ci ay nag nag yooyu Aminata Mbengue Ndiaye bu mu nekkee ministre de l'élevage moom moo ko indi woon ba mu ko indee it ah gouvernement bi jox ko gars yi ba pare jëlaat ko ne leen yéen amu leen sax loo leen lekk bay dundal ah ñi ay nag yi donc ci la indee nag yi ne gars yi kaay leen séddoo Mansour Faye jël ca la mu bëgg

da ko jël ki nga xam ni moom mooy euh, Aly Ngouille Ndiaye moom tamit yor na ferme Linguère donc ferme yi nga xam ni jaari soow seen soow la jaari soow dem leen ci usine soow ba ngeen nangu soow ma naan bu kenn jënd jaari soow jaari soow ku ko jënd jënd nga yow jënd nga sa alal jëndaat at sa alal jëndaat nga sa alal ku jël sa alal jëndaat ko loolu yow la kon nag jàpp leen ni jaari soow seen nag la seeni milliards impôt seen seeni milliards taxe la seeni impôt yu bàyyi la seen impôt yéen ak lépp kon nag jaari soow yéen a ko moom doomu ah Mansour Faye moomu ko donc ferme yi ngeen di gis nag yu ngand yooyu yëpp suñu nag la loolu projet la bu Aminata Mbengue Ndiaye yoroon indi ko fi ñu jël ay milliards ñoom ñoo séddoo sañu nag yi yenn yaa nga Linguère kon nag bés bu bal ba tàkkee daw leen Linguère jël fa nag ya bés bu bal ba tàkkee daw leen maanaam Saint-Louis ca Bango ranch ba jël fa nag ya donc suñu nag la vous allez où là hmm? vous allez où Ah, ok, ok. À tout à l'heure alors. Bon, donc, ay nagu Sénégal la. Ok. Euh, état bi débloqué de l'argent pour ay mooy lait bi pour meew meew beeg donc ñu sàcc xaalis bi ñu séddoo ko aali nguy jël jël ku bénéficier aussi xam nga ñu dem seen presque presque gouvernement bi yëpp jël donc l'eau nag gué bu leen Mansour waxee ni euh, wa mu ngi insémination artificielle sax la tudd nag projet d'insémination artificielle d'insémination artificielle jàpp leen projet d'insémination artificielle du ministère de l'élevage ñu ay milliards donc Mansour Faye vous voulez waxee moo jënd nag yooyu wala doomam la ko jënd day kàcc bu leen Aly Ngouille Ndiaye ferme ba la ca nek mune moko jënd day katch donc la <laughs> len lèr ñom ñëpp jël nak ya séddoon nak ya seen biir ku ne yobbu kërëm mom Mansour Fay nak jëlul bango kessé de jëlat na boo leen demee Sacré Cœur am na foofu noonu ci ngandam maami ferme bu mu fa yor Sacré nag ya nag ya tam ñu ngi foofu di def meew waa Sacré Cœur yëpp fu ñuy jëndee meew googu ñuy jënd noonu ak soow ga loolu yëpp nag ah suñu nag la kon Mansour jëloon nag ya rek yóbbu Saint-Louis da koo xaaj yi mu yóbbu ko sacre Cœur waa Sacré Cœur ña ngay naan ca meew ma di dem di jëndi meew dafa rang loolu suñu soow la suñu meew la

pour am race bu baax voilà pour am race bu mélange beeg tout ñoom séddoo nañ ko ñun nous ñu jàppee ñu daal eh, ñu baaxul ñi mais lépp dinañ ko teg fii te loolu maa ngi wa Pa Pape suñu grand frère suñu suñu tonton mu def ci ay gëstu bu baax a baax a récupérer Nous suñu nag yi tamit wala indi ci ay leeral yu gën a ci suñu nag projet d'insémination artificielle bi nga xam ni ci race yi nga xam dañu leen jëlee Hollande indi leen def ci ay milliards yi milliards yi milliards ñoom ñi jël ko parce que ñun moom dafa mel ni daal ñun ñooy jur ju bon ji bu ñu indilee nag ñu jël ko bu ñu indilee ay biche euh, Abdou Karim euh, euh, dibi ko Abdou Karim dibi dibi ko donc ñun daal lu ñu indil rek ñi oryxier ñu dibee ko nag yee ñu séddoo ko ñun daal ñun ñooy kumba abul ndey ñun daal ñun ñu ngi daal ñun ñun ñooy orphelin yi orphelin yi daal donc kooku nag moom mooy Aysata umu umu moom ci tool yi la nekk Ross Béthio boobu tam benn projet boo xam ne la woon

n'est-ce pas merci beaucoup VDN DDR Elton hein? ok milliards des milliards yoy non nga euh, gouvernement bi def pour machine yi nga machines agricoles d'une valeur de plus de 2 milliards donc milliards, euh, yeup Mansour Faye jël nako jox ko fay Ni ñun ñun suñu lu des lu donc machine agricole ya nga ma nga foofu y a plus de 500 hectares boo xam Oumou fay moo ko moom di ko fay bay Oumou Faye moo ko moom di fa bay fële ca Ross Béthio benn ak 500 hectares Oumou Faye machines ya yëpp mi ngi foofu yii sax dañ leen muur bâche machine gouvernement ba yii sax dañ leen muur bâche Oumou Faye ma nga fa jël ay mor suñuy moroomu sénégalais nga xam ni ay kumba amul nday lañ di leen liggéeyloo day ñëw dawal Range Rover am kii ma la xale bu ndaw laa xale bu ndaw Range Rover am lay dawal ñoo am nañ ci sax parking Mansour Faye yor na parking Range Rover parking ci biir ci biir ranch am bi ranch bu nekk Bango boo leen fa demee parkingu Range Rover mi ngi fa Range Rover last cri bees takk zéro kilomètre ñu ngi fa ñu rangale nii rangale VIP donc moo tax ma leen leen yéen Saint-Louis préparé wu leen parce que y a énorme richesse yoo xam ni euh, événement mbërgu bu leen taxaw parce que foofu moom foofu ku fa jiitu am nga lépp nag yaa nga fa parking Range Rover baa nga fa euh, panthère bu ma leen waxoon kër néeg bu ma leen waxoon dañ def fa caméra mu am ay milliards yu ñu fa def ci ay saak ay sac paquet paquet paquet paquet paquet ay paquet paquet paquet donc ndar moom normalement yàlla wàcce na leen xéewal ndax pétrole baa nga fa gaz baa nga fa ba pare ngeen boole ci nag ah ku dàqa sàcc Sénégal fa la dëkk ku dàq sàcc Sénégal kon boo leen yéen bu bés bu fipp bi jotee a ah, am ngeen ay nag maa ngi leen ñeenaa leen sax am ngeen nag ay nag raas yu doy waar am ngeen soow jaari soow am am ngeen parking oto am ngeen ay hectare Ross Béthio machine yaa nga fa mu ngeen dem jël yéen moom yéen moom seen bamba maasé ne yéen moom <laughs> xamna wa ndar mom kenn dotul ñakati ci yeen yeen mom yeen inshallah événement bi mom di ngeen fa jaaré tekki ba faw yeen mom yeen yeen lañ wara a <laughs> ndaysan ak ak ak ak magasin wu xaaliss bobu nga xamni Mansour mi ngi mu yore macha allah kon nak bés bu af événement mbër gi wara a dem leen jégué ji côté Saint-Louis kon ñepp taxaw ci buntu ba di xaar bu ne prit rek nga daw duggu parce que sinon da ngay perdre dé <laughs> parce que gaay ñom seen seen xaaliss ba bàyyi ñuko Dakar ñom caga ji lañ bàyyi Dakar xaalis ba newul Dakar caga ja lañ fa bàyyi di leen tëddee di leen futti di leen euh, pamte pamte point mais seen xaalis ba yëpp ñu ngi seen région ya ñoom ñoom Dakar daal caga caga cagatu lañ fa nekkee cagatu point soxlawuñ leneen donc voilà euh, euh, hôtel Lusiane Saint-Louis jóg leen hôtel Lusiane benn tubaab moo ko moomoon Mansour fay moo ko jënd à cent millions cash cent millions cash hôtel Lusiane

million. donc tubaab bi tubaab bi jour boobu dafa tiit Mansour dafa ubbi malade d'argent bi tubaab bi tiit parce que tubaab mënul gis 100 millions cash yu ko Mansour Faye tubaab bi moo génn di ko wax j'ai été ébahi j'ai vu le gars il a sorti il a ouvert la mallette oh mon dieu oh mon dieu des paquets des paquets de liasses des paquets tubaab bi xam nga tubaab day wax tubaab mom mom mom bokk ñoom ñun tubaab bi ñom dañuy dul di dem rek di dem tubaab du fen nak day day dul di dem da ngay raconter da ngeen di wooyee dul tubaab bi ñoo ay ci lolu ñom dañuy raconter tubaab bi mo génn ne mom moom day hôtel ba da ko don jaay hôtel la Louisiane cent nee na moom moo génn cent millions cash la saway ubi mala jox ko donc la Louisiane à Saint-Louis appartient à Mansour Faye turam mo fane Amadou Mansour Faye mo fane donc hôtel la Louisiane la Louisiane donc fofu bo leen fa demate ku fay <laughs> sa yaaya baaxul man de bés mo duggee Saint-Louis dina fa dugg jël chambre bu gën ngand ne leen taalal leen ma clim yi taalal ma clim yi ma njaax ma woo bon bi ne ko defaral ma fi mu defar ba ma rafet ma njaax lu ma neexee toog fa une semaine wala deux semaine di génn doxantu biir Saint-Louis ba heure ma neexee ma génn kaay fay ma ne ku ma ne fayal ma noq la

Oumou Faye, Mansour Faye, il 80 millions pour le siège PDS de Saint-Louis. Puis vous savez, à la maison la maison juxtaposée. Donc, siège PDS, Oumou Faye a pris 80 millions de dollars pour le siège de Mansour À la maison Donc, tout ça, Oumou Faye a pris Donc, il a pris 80 millions de francs cash pour le siège de Mansour Faye. le fils de Ousmane ma Ndiaye du nom de Baara Ndiaye Baara Ndiaye moo jaay siège PDS Baara Ndiaye doomu ma Masseck Ndiaye moo jaay siège PDS bu Saint-Louis donc loolu tam bu leen ko fàtte ku mu ko jaay kan la jaay ko Mansour fay doomu Mansour Faye mu ndaw moomu nga xam ni moo yor suñu machine ya moo yor suñu tool ya kooku la ko jaay muy ummiyatu fay moo jënd siège ba jënd kër gu mu takku lool

saaxo bu moo dem mu ne maa saaga ndayam saako donc ne kenn du fi jóge donc kër googu litige la donc moom nee na du ko bàyyi ñoom nee duñ ko bàyyi Mansour wut huissier pour expulser leen problème boobu ba léegi mi ngi fa mais nag tur bi ki nga xam ne nag mooy Baara ñu ngi ko tuddee sëñ Baara Mbàkke sëriñ Baara Mbàkke lañ ko tuddee doomu ma Masseck Ndiaye moo jaay siège PS PDS bi doomu ma sekk Ndiaye moo ko jaay doomu fay Faye Oumiatou fay donc xale yu ndaw ya yi doo ko judd ya ñoom ñooy jaay ay kër ñoom ñoom ñoom ñooy jënd ay kër do demee ba doomu Ousmane Masseck Ndiaye Baara Ndiaye di jaay kër doomu euh, Mansour Faye quatre-vingts millions di ko encaissé Sénégal toog paa toog di am problème mu cent franc problème mu deux cent franc ngeen xam ni réew mi toj na réew mi rajaxoo na donc ñu jàll donc wax naa leen huissier bi R plus 1 la litige la nag loolu étage bi euh, kër la R plus 1 vingt millions waaw doomu ma Masseck Ndiaye bi euh, ñu ngi dëkk euh, sëndoone sëndoone la kër kër gi sëndoone la nag Mansour Faye it jënd na kër ma Masseck Ndiaye bu nekk sëndoone bokkul kër wax bi siège PDS la mais Mansour Faye jëlaat na jënd na kër Ousmane Masseck njaay bu nekk Sëndoone Sëndoone Mansour Faye mi ngi ko jëndee cent cinquante millions cent cinquante millions bu tojul dara la Mansour Faye jëndee kër Ousmane Masseck Ndiaye bu nekkoon Sëndoone Sëndoone Sëndoone boo leen demee ca Saint-Louis ca Sëndoone Mansour Faye jël jënd na kër Ousmane Masseck Ndiaye boobu à cent cinquante millions loolu mo nek ci acte de vente c'est son nom Amadou Mansour Faye mo nek ci acte de vente ba Mansour Faye jënd na fa donc japp len encore une fois que keur ma keur Ousmane Masseck Ndiaye yéen wa Saint-Louis mom bu nekk kër Masseck Ousmane Masek Ndiaye bu newoon Sondone ville de Sondone japp len fofu ne euh, Sondoni japp len ni Mansour Faye moko jënd au sud exactement à 150 millions donc mo nek ci acte de vente ba donc Mansour Faye ma ngay jënd Saint-Louis ñu joggé Kaolack juddo Kaolack ma ngay jënd Saint-Louis doomu Saint-Louis nag dinaa leen wax lan moo tax Mansour Faye toroxal leen néewal leen doole tëj leen ba pare jënd lépp lépp di jënd di tëddee seen sër yi ñenn sër yi yolom yolom sër yi tëddee seen sër yi yolom sër yi yi tëddee seen sër yi yorom sër yi tëddee seen sër yi yolom sër yi toroxal seen góor yi toroxal seen góor yi ba pare sàcc seen alal loolu la Mansour fay nekkee foofu donc ñu dem wax naa leen ko lii dama ciy ñëwaat lee dinaa ci ñëwaat waaw wax naa leen raxma wanoon naa leen ko raxma taay fiin la wanoon naa leen 92 gii la juddu nee naa leen en 2020 mi ngi wër liggéey après les élections de 2019 mi ngi wër liggéey moom raxma di wër di wut liggéey di wër di wut numéro Mansour Faye léegi mi ngi yore 4 x ak chauffeur wax naa leen ko Ford Edge couleur marron lay dawal raxma forge et kuréel maron waxoon naa leen ko Mansour Faye lépp moom moo ko géré moom moo ko jënd moo ko wutal kër forge et bi muy dawal lépp koo xam ne en deux mille vingt yaa ngi wër deux mille lañ ne de deux mille vingt kooku yaa ngi wër Saint-Louis yëpp gis nañ la nga nga sol ay carax yu dagg yu nga takkee fil fil de fer takk ko fil de fer partout ngay tëñëx tëñëxi di wër Saint-Louis di wër loo lekk di wër liggéey ah en deux mille vingt deux mille vingt deux nga yor sa benn forge et couleur marron te musoo liggéey donc sandar pain bi nga jël rek tay la ko Mansour muy depp ke dipi di ñam di maliku ba légui yang ko jox sa donc wax ni rama moom ngeen di gis rahma mi ngeen di gis taifin. mi ngeen di gis taay xam nga ndjol ku ko tak torox nga ku ko tak tak ko amo jabar ndax sa ma ñam ci tuju Mansour fay bobu la xam boko takke torox chaque jour Mansour fay da ko irrité da ngay am sa jabar foog ne yaa tégal gaynde ga Mansour fay di jaar di capp di ñam di dóor parce que xamante ne ñaari taat yu minent la yàgg na ca ca ndar la ca ndar la taat yu minent ca ndar ba la ca ndar ba ndar payen ba ca ndar ba la donc kon ah, dans moins de deux ans ah kii di Rahma am fi oto am fi chauffeur am fi 4 x forge RG am fi kër am fi di dox ay soxlaam donc euh, macha allah Rahma ah <laughs> sa ndar payen bi lu muy saf de waaye daal neex na lu muy saf. xaw ma xorom xaw ma suukar waaye daal standard <laughs> pain bi sax na Mansour macha allah waaye nag ñu ngi lay ñaan sañ xaalis ba nga jël Mansour mi li mu lay jox noonu force étude boobu moomu ko bàyyam liggéeyu bàyyi ko ko fi yaayam liggéeyul bàyyi ko ko fi Mansour jox la suñu force étude jox la ay million jox la suñu kër ah ñu ngi lay ñaan ngir yàlla nga xam ne la nga yor noonu moomoo ko te incha allah dinañ ko jëli si ala kulli àll chauffeur bi nag moom yaa xam waaye force argib moomoo ko kër ga ngay ba la jox moomoo ko appartement yi nga yor moomoo ko alal askan wa nga yor moomoo ko te incha allah nu mu metti metti dina ñëw faqat ko jël ko yóbbu ko incha allah yow raxma profitool nu mu la neexee fu mu nekk nii day ñu ci diggu bopp rek ah waaye moom la révolution et silencieuse te ñu ngi ñëw sa kaw incha allah donc mi ngi noonu waxoon naa leen tam jumaa ji ci jumaa ji jumaa ji it waxoon naa leen ko ki nga xam ni euh, euh, baayam euh, liggéey na fi nekk fi ba dee maamam liggéey nekk fi ba dee jumaa ji am na 45 ans te jumaa ja demul dikkul kenn tabaxu ko jumaa ja munul mat ah Mansour Faye waxoon naa leen ko génn na plus de million cinq cent millions jox ko njaboot ga ca ndar paayen bala bu fekkee politicien mooy financé léegi ay jàkka ay jumaa ku fa dem jullee yow la de <laughs> wax nañ leen ko de xanaa ngeen bañ a xam ni lii luñ ko tabaxee alal la waaye jumaa ju Mansour fay jox cinq mille cinq cent million ñu tabax ko ku fa jullee yaa xam de yàlla daal daf naan boo xamul yàlla lu mu wax dafa leer de boo xamul toppeewuma la ko waaye boo xamee boo fa jullee <laughs> sa waay loo julli yàlla dajale ko fëggat la ko ndax xam nga jàkka jooju ci ay taat lañ ko tabaxee ay taat ci taat taat raxma mii ci boppam raxma si raxma si la Mansour fay di laal di ko tëddee di ko ñamaka ñamatiku ma moom raxma maamam bàyyi woon fa ab mosquée ca njolofeen ca njolofeen njolofeen njolofeen déglu leen jàkka yi bëri na jumaa yi bëri na jumaa jooju moom jumaa luñ tabaxee di saal la ñu ngi koy tabax di saal à travers du sexe lañ jël ay cinq cent millions finance ko benn kër boo xam ne nit moo fay doxaan ab alalu sàcc ko fa jullee yaa xam buma don wax ci juma job 100 ans duma torox dara duma dal ndax yalla day kontaan ci man xamni ñi ni ñaari chaxan kat yi ñaari njaalo kat yi rahma si di njaalo ak Mansour fay ñëw fek mamam don tabax ap juma bayiko fa juma job paré loo lo xamni ya 40 ans musul paré mu jël muy ndax ndar paan muy ñam xalé bi subaak ngon jël 500 millions jox leen tabax leen juma job ku fa julli ya xam ku yaakar ne mun nga fa julle ba yowmal khiyam yalla yóbbu la ajjana te nga deg lu mel nii yow yow la de <laughs> yalla mom karim dara ump ko donc rahma si son père moy xafis si mosquée bobu nak mi ngi nekk Ndiolofène fen mama mako don tabax ba bu muy faatu ba di faatu musul mat musul yegg Mansour fay di tëddee rahma si di fowé diko damp di depp ke dipi dippi jël 500 millions joxé ne len tabax len ko man de ah ayca ca jàkka ji ayca ca jàkka ji moom ma gënal Mansour Faye di tëddee raxma si àdduna yépp xam ko mu koy fanaanoo suba ak ngoon di ko war te bañ koo wàcc jël 500 millions jox ko jumaane la yeggali leen ah ku fa jullee wala ku fanaan naan allahu akbar ñeme nga yàlla de. xam xaw ma nag sénégalais nan lañ amee fit ba dugg ci jumaa jooju naan naan dañuy nodd allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha laa ci yàlla ay gars yi ñëw dëgër fit. Hmm? Hmm. te ñoom ñëpp xam nañ loolu ban doomu aadama moo dëgër fit ñu may taxaw naan day nodd ci jumaa jooju ay way noo yoomal xëy am nee naa leen langue officielle ba safara langue officielle ba wolof la nee naa leen c'est pas dama ne safara langue officielle ba wolof la da ngay dégg woy sama ndeyooy woy yaay yooy woy yaay yooy woy yàlla baal ma wooy wooy woy sama ndeyooy mooy gën a riir ñu ñu ñu ñu yàlla di tëmba safara te dégguñu wolof sax dinañ fa dégg wolof ndax wolof ya nu wolof nga nu mu fay bëri mooy langue officielle safara. woy sama day yooyu woy ay yooyu wooy wooy ba chinois yi wala ñeneen ñu ñu fa tëj sax naan ba lii lan la lii ba lii ban langue la ndax dañoo ñime yàlla ñime yàlla seen yoon nekku ci s'en fout yàlla dañ koy sàkketoo nii rek tollu leen fenn. <laughs> loolu moom noo koy bàyyi yàlla ma continuer waaw ah, ma continuer man donc gis nga jumaa ji cinquante millions la fa Mansour xëpp ndax nàmp kese ay nàmp nuuru buuj langaamu ci weenu xale yi ah rahma si Mansour da koy jàpp xam nga taay fin la sew kii Mansour daal da koy jàpp di dàmp ko dompi di nàmp ci ween ya di di nuru buj di langaamu ci ween ya kese mu jox ko appartement def ko directrice su cabinet mairie ba jox ko 4-4 forge edge jox ko alal jox ko bay tabax bay tabax jumaaja bay tabax jumaaja 500 millions lepp ndax namp lepp ndax nuru buj lepp ndax langaamu ci ween nga jël alal askan wo yep xep ca cay mansour ay mansour ma cuucu ay way ma cuucu do nit wa ci ñi dem fa na ma xor sama attaay kon Rahma ñi ngi lay félicité xam naa sa bagage yi moom baax na lool mën ngaa encaissé cuucu Mansour bi ndax xam naa ni macha allah cuucu Mansour war na laa saf ndax bu dee Rahma euh, sa bagage yi tax na Mansour jël alalu askan wa 500 million jox ñu tabax jumaa ja jox la 4 4 Forge Edge couleur marron jox la chauffeur. def la directrice cabinet ah sa bagage yooyu war naa yéeme de xanaa da koy cuuraay da ngay ah da ah, koy dàmp wala lan la raxma wax ñu waat fi mais nag félicitation de xaw loo def ci sa bagage yooyu waaye daal ah ku la nag daanaa waxal dara de ku takk torox tott ku la takk torox tott mi ngi noonu allitération yi ku la takk torox tott xaw ma nag ban biddoo xaraam moo ñëw naan day takk maasu day takk ah, raxma si nga xamni 92 la judd jël ndar payen ba am nak nag yu sop bo defu ndànk danañ dem di wëri rahmanan dañ koy jema ñam mais tank que Mansour Fatou Mansour Fatou moom mënul leen ko ñam ndax lu ko Mansour di jox ci alalu askan wi amu leen ko xëy benen gouvernement ñew benen gouvernement ñew ñom tam am ñu mëna dem xoli rahma euh, lu Mansour fay doon fanan fofu di ci ray bopam ah lan la lu muy saf ndax lu muy saf ko ko macca ko xam donc Mansour fay collabore avec basirou Gueye basirou Gueye lu ñu wooyee bii bi yéen a ngi fàttaliku wooy Youssou Ndour Bassirou Gueye bii bi Bassirou bii bi <laughs> gars yi bii bi nag ma nga Saint-Louis te way Youssou Ndour yee njëkk ya ba nii ma nga Saint-Louis njaax moom moom tamit moom mooy bras euh, droit mooy day blanchir xaalisu Mansour Faye Bassirou Gueye bii bi Youssou Ndour doon ko way xam nga yu moom bandi la moom moom bu rek moo toppal waaj bu woowee waa rek toppal waa ji boo deful ndànk rek di ngeen ko jàpp donc Bassirou gay bii bi euh, ma nga ne du màgget jàpp ca xale ya di tëddee di ñam Mansour jël ay milliards jox ko ko Bassirou bii bi di wëndaalu di taxawaalu di ñam di kii donc dañ ko jox benn lu ngand seen aéroport boobu ngeen gis mu nekk Saint-Louis ñu ne 45 milliards lañ ca def xaw 450 milliards ah bii bi moo géré woon affaire Basirou kii nga xam ne mooy Mansour Faye daa ñëw jox ko bii bi ne ko bii bi géréel ma lépp blanchir ma lépp ñoo ñu ñëw nag ah moom Basirou Gueye bii bi plus de 45 milliards ñu dóor seen surfacturation daaneel kër yi fa nekkoon ne ci piste aéroport ba la bokk jël terrain ya Basirou Gueye bii bi di wër ndar di ko jaay quinze millions. Mansour Faye mooy jël lépp xaalis aéroport bi ngeen di gis noonu ñu ñax ñabal ko noonu nga xam ne tey mi am ay mbaam ak yooyu Mansour Faye lañ jox xaalis bi Macky Sall moo fa dem de jox Mansour Faye ay milliards ne ko blanchiraatal aca Mansour ne ko vëm ci biir jox ko Bassirou Gueye bii bi bii bi ne ko rang teg na le xoolal ñu ne ko yow gérer kii ba ñu jël opérateur économique yi ndax yëpp tëj ñu jël opérateur économique yi fa nekk gars yi li euh, homme d'affaires yi fa nekk kenn bénéficié wu ci kenn moo lañ ko jox muy Bassirou Gueye bii mu géré ko ñu jox ko milliards ya ah mu lekk lépp moom ak Mansour dóor seen surfacturation def fa seen aérodrome du aéroport aérodrome naxaate aéroport boo xam ne avion dafa wàcc avion dafa wàcc di dem France avion bu fay wàcc dem Amérique amul avion bu fay wàcc dem Tunisie sax amul avion bu fay wàcc dem Maroc sax amul donc ñu dóor seen aéroport dóor fauteuil ne kaay nax sénégalais lépp mu ngi jaaree ci Bassirou Gueye bii bi yemu ca Bassirou Gueye bii bi ñëw fekk borom kër ya newoon foofu yëpp mu daane kër ya lépp lañ koy yokk ci piste aéroport ba borom kër ya dem ñu jël ñu jaay leen doole jox leen ay weccet léegi foofu dañ fay jaay terrain 15 millions yàq nañ kër jàmbur ya Bassirou Gueye ak Mansour Faye yàq nañ kër jàmbur ya terrain yooyu léegi 15 millions lañ koy jaaye blanchiment d' argent duñ doyal na nga noonu acca ñu ñu ñu xoolaat jeune bi vite fait ñëwaat donc Bassirou Gueye bii bi ah moom ci ñuy blanchir xaalisu Mansour Faye la bokk moom kese moo nekk ndar di bénéficier wu ci ay milliards yoo xam ni ay milliare u Sénégal la yu Mansour fay di jox Bassirou Gueye bii bi mu koy ah, ñu koy blanchir xaalis ba waaw ah, waxoon naa leen tamit ki nga xam ne mooy code bi am ca caga Mansour la moom mi ngi dëkk Pikine Tableau Waalo waa Ndar boo leen Pikine tableau waalo koddu caama nga fa di xale bu ndaw Mansour def ko tête de liste bu benno bokk yaakar bu Saint-Louis Aba mbay japp ko ndulliko tulliko wulliko ba tok ci kawam waaw momit ah dinañ ko juge ko ci crime financier ci laalante gu metti ak Mansour fay ci sar saaxe ak à pasare de dëkk bi ci euh, excès de consommation de chouchou Mansour Faye de Mansour Tchouchou Faye, une excès de consommation du Tchouchou Mansour Faye. loolu tam dinañ ko ci toppee dinañ ko toppee mon corps ci Cagay Jalla mu dëkk Pikine tableau waalo l'eau repère, ko di xale bu ndaw mon Mansour bëggoon ko def tête de liste donc dinañ ko topp dinañ ko juger en tant que crime ci crime financier ci laalante gu metti ci détournement des deniers publics ci consommation d'excès de consommation de cuucu de Mansour Faye Mon nag dinañ ko gé dinañ ko toppee aussi ci énumération ay millions yu kii di Mansour Faye di jox ay téléphone portable voiture villa mu géré ben GIE bo xamné ne mi ngi tudd jàppale ndaw yi Mansour fay fu mu dem ba ñam fa waxuma la ay milliards de da la jox ay milliards jox la kër jox la auto waxuma nak loolu waru tax ciaga ja dem dé ndax ciaga ja dinañ fa fess mais Mansour jamono ji na leen wax ni jëlatul téléphone te naa leen expliqué lu donc mu jox ko benn GIE bu tudd bu mu créé tuddé ko jàppale ndaw yi bu depuis un an ab célibataire la ñi ma leen wax yépp ay ay célibataire lañ à part daal Aminata Gueye ak yoyu mais ñi ñëpp ay célibataire la ay xalé ndar lañ célibataire yi day taxawaalu oyof sër ay suñu sër yu oyof sër lañ yuñ jàpp di fo Mansour di leen tëddee suba ak ngoon euh, guddeeg bëccëg donc moom ki nga xam ne moom mooy Codé Thiam moo géré yoo GIE jàppale ndaw ya célibataire la nag ay financement ay millions la ko Mansour di jox waaw naan ko jox ko xale yi jigéen yi te nga fexee jox leen sama numéro amul benn góoru ndar boo xam ne consommé nga ab jot nga euh, bénéficié wu nga ci GIE jàppale ndaw yi yée jàppale ndaw yi daal benn caga Mansour bu tudd kodd caam la ko jox nan kodd ko jigéen joo ko jox bu tooy nag bu ko jox ku ñaaw bu ko jox ku ñuul bu ko jox ku ñaaw bu ko jox ku ñàng bu ko jox ku gàtt ku mel ni Mollah Morgun wala dara jox ko xale yu njool sew saf nga xam ne dinaa leen mën a téye di leen pamti pamte ku mun a màcc tuutu jox ko ñooñu genre yooyu donc kodd moom day wër rek xool ku kii rek <laughs> mu xool ba xam ne oyof nga sër xaw yaa ngi mel ni moom wala yaa ngi mel ni yeneen caga Aminata Gueye wala nga mel ni benn keneen ak keneen donc ñu jox la yooyu donc comme moom

Riumi, kuah lep deh, de ci tàgg jàlla bokk ay ca oh ya ya ya ya mais fami bobu dañu febar nak dañu febar de dañu febar de te dina ci ñëwaat ah <laughs> fami bobu dañu febar dina ñëwaat ci même Adama fay ah Adama fay fami bobu dañu febar Adama fay mom mom mom ben vis la mindan, mindani. Adama fay mindan mom visu mindan la am mindaan bu ñëw këram mu tëddee la mindaan bu dugg moom Adama Faye moytu leen di doon mindaanam képp ku jël sa doom jox ko Adama Faye la frère u euh, euh, euh, la dame lu mu tuddati kii Faye xaw xam ne seen première dame bi sax tur bi day day génn ci man léegi aadama euh, fay daal moom mindaan ya lay tëddee waaw moom mi mais dinañ ci ñëw moom moom dama am histoire moom am naa dossier dinañ ñëw ci moom insha allah donc euh, voilà ñu ñu ñu avancé dafa bëri ay affaire dafa bëri ay affaire nag voilà ok cey caga caga caga caga ndar ya caga cey caga ja mais ndar am nañu baax nag am nañu baax am nañu gore am nañu laabir am nañu set waaw mais mansour fay moom borom borom kaat jabar ya 40 caga ak juróom benn takk suuf ak 65 doomu biiral yu ma yi taxawaale ci mbedd yi man nañ équipe nationale ñaari pays wala ñetti pays ma ña nga noonu daal mi ngi nii aéroport bi 23 milliards lañ ci def 23 milliards aérodrome 23 milliards avion cargo rek moo fay wàcc bagage ñu dugal ci seeni seeni seen récolte yooyu ñu dajale mi ngi noonu. agro business bi muy def doomam yu ñuy jaay yu ñu kii ceeb yeeg suukar yeeg yooyu yooyu ñu kii yooyu la avion boobu dañ ko loolu dañ ko defar pour do aérodrome boobu du seen yéen waa sénégalais yi nekk ndar de attention ah, ku fa dem naan da ngay da ngay dèjà fa avion du fa jóg donc benn Saint-Louisien du fa dem avion du fa jóg. foofu ay cargo ñoo fa ne cargo day ñëw taxaw moom um dem récupérer li mu li mu bay ceeb yeeg affaire yooyu ñu dugal ko ci kii bi ak fruits yeeg ak ak denrées alimentaires yi avion bi dem yóbbu ko France ñu jaayal leen ko ñoom ñoom bañ nañ ko ba Babacar Gueye bii bi moom moom lañ ko jox vingt ñu ñu dóor seen benn vingt trois milliards ak ak terrain yi jaay quinze millions ñu defar seen aéroport seen aérodrome teg fa seen cargo di di li ñuy bay di ko fa sotti di yóbbu di jaay di indi di consommer du pour ndar-ndar yi de <laughs> moo taxit ma mus ngeen gis benn Saint-Louisien bu fay dem naan dafay taxawaal kon ñu wax ko boppam de. amul vol amul vol yi dem Dakar amul vol yi dem France amul vol yi dem Canada amul vol yi dem Japon amul vol yi dem Maroc.